dikkati na fi réew mi toll yàlla bu kenn jaaxal kenn waaye it yàlla bu kenn jaaxle ci kenn yéen kaay bi média bi naan man en tout cas parrainage mi ngeen di jiixi jaaxa ci askan wi daal di rëbëje nag xel yi yéen kaay bi média bi naan man ña bokkul ci système jàll ña bokkul ci ñu kale leen lii daal moo tukkee ci wàllu parrainage turbine naan man en tout cas ni ki démb Aly Ngouille Ndiaye jàll na Mame Boye Diao jàll na Mohamed Boun Abdallah Dionne jàll na ña nga xam ne nag ab semblant xuloo la ñu dem ak président Macky Sall daal di jàll këyit ñu téye ko Ousmane Sonko bokkul docteur Abdourahmane Diouf bokkul le mooy naan kon waaye ñaari gaay Ousmane Sonko bokk nan muy Bassirou Diomaye fay ak Habib Sy tribune yéene kaay naan ko déet weñ waa nga bañee ca mbànjaxaan wa coow li coow li mooy nañu xaar ñaar fukki fan ci weeru janvier bu ñu nee jeex na tàkk mbir yi saytu nan dossier yi ñépp jàll na nag ñu xool ndax turu Bassirou dana ca nekk am déet ndax seenub logique ci boppam gaayaa nga ca turbine naan man dama ne la gaay ña nga ca seenub na daal dinañuy écarté Bougane Gueye Dany écarté nan Ousmane Sonko ko écarté nañ docteur Abdourahmane Diouf ne bàyyi Amadou mu doxal te doxal ga nag war ca ànd ak Aly Ngouille war ca ànd ak Mame Boye Diao war ca ànd ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñooñu nga xam ne seeni fàmb la nu bàyyeekoo te le 20 dina am ñoo xam ne ma ne la manees na leen fa déjjatee ñooñee ci boppam dañ leen di ronxee ci liste yi tribunal man waaye bu desee Amadou Ba ak ñamu bokkaloon kan dong waa léegi yow mi wote koy woteel ndax koo ci woteel mel na ni woteel nga Ba rek ñaareelu wërngal ñooy ànd sénégalais yi réeroo amul ñàkk waxtaan a am lii nag mooy wure dëgg cim l'évidence naan kon en tout cas Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko moom out anti système yi moom kenn boolewu leen ci mbir yi dañoo taxalikook ñoom ca yoon fayal laaxu ne leen jaar leen nii ñu ñu jaar nee le mandat yéen kaay naan man élection présidentielle 2024 bi Bougane Gueye Dany bokkul Ousmane Sonko bokkul candidat yi nga xam ne mën nañu biijal si su président Macky Sall ñoom ci boppam la Sall taxalikool ca yoon coow la mooy joxu leen sax yóbbal moom président Macky Sall dafa leen bàyyi bàyyi vox populi naan kon Bougane Gueye day gannaaw ba nga xam ne tàqalikoo nañu ak moom ma nga naan leen duma bokk ci présidentielle bi de waaye danaa ca saf ne dégee safee ci maafe Bougane mel ni ku naan kon président Macky Sall xanaa doo xool génnee ma ci présidentielle bii de ma ne la ne ma doo bokk man naa nekk caxat caxatee parrainage yu ba génnee ma ci mën naa nekk waaye fexe ba man duma taxaw ci opposition bi xeexandoo ak ñoom dégager système bi loolu mënoo ko moom jiital gëm sa bopp naan kon Sall sa yet wi lu may gën a dal man soppi ko carburant carburant boo xam ne ma ni la daf may gën a jox doole gën maa motiver gën ma ne copp ma taxaw gën ma jox sañ-sañ ak fit woo xam ne danaa jaamaarloo ak yow man la amul tiit amul yox-yoxi nañu boole suñu doole daal di fii jële gaayu système bi mooy dëgg réew mi quotidien naan man en tout cas ni ki démb fukk ak ñaari liste yu yees daal dinañ leen di walidé bés bi le jour naan man effet secondaire yi la Sud Quotidien naan kon am na ci candidat yoo xam ne dañoo xàll ñaabar ñaabari ne kenn duñu téye bokk na ci Idrissa Seck Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao Rose Wardini daal di fekki Anta Babacar Ngom ci jigéen ñoo xam ne ñoo ñu ko ñuqi parrainage bi daal di jàll Mimi Touré Abdoul Mbaye Souleymane Ndéné Ndiaye ak Bougane Gueye danañu daal di leen di recalé le quotidien le quotidien naan man en tout cas am na ay petit modèle ay PM yoo xam ne bokkuñu Souleymane Ndéné ak Abdoul Mbaye ak Mimi Touré ca lañ bokk Idrissa Seck ak Mohamed Boun jon Dionne mucc ci mbir yi vox populi naan kon en tout cas ci lim gi yëpp ñaar fukk ak benn ci ay ñoo daal di jaar ci wërngal bu njëkk bi ci juróom ñeen fukk ñett ñoo xam ne war nañu bokk ci élection présidentielle bi Abdourahmane Diouf naan leen bu ngeen ma ñamoon xam waaye nag mbir mi jàppewu ma ko mi Mimi Touré naan Sall ne woon na du ma bokk bokk ma l'enquête ko dajee nan kon en tout cas ña nga xam ne dañoo bokk am nañu feem yoo xam ne moo leen bokkuloo Walf naan kon démb tali gi yaawoon na ngir gaa yi nga xam ne ñoo doon déposé le témoin naan kon démb dee ña jàll sax moo ëpp daanaka ña njëkkoon ndax téye gi bari wut woon conseil constitutionnel nag daal di jër ñaar fu ak benn sélectionné leen ne leen yéenay jaar ci wërngal bu njëkk bi mu des ñaareelu segg bi ak Bougane Gueye Dany bokkuñu ci segg bu njëkk bi anti système bi ci boppam système bi daal di leen di mokkal rumbax ña nga xam ni ñoom la ñu téye xam leen ni mbir mi daanaka jaayub doole la sénégalais yi naan leen du ay élection ay sélection la l'observateur naan man en tout cas am na ci ñoo xam ni moom tee nañ leen mën nañoo tàggatoo ci wàllu politique te xam ni jeexal nañ ca tàkk bés bi le jour naan man en tout cas ñaar fukki candidat ak benn day mënu see ñàkk dina ci bari ñoo xam ne duñ ñam présidentiel bi kay yéene kaay bi naan man 2019 juróomi candidat la ñu woon daanaka ngir organiser élection institution yi fukk ak ñeenti milliards ci koppar def nañu ko turbine yéen a kaay naan leen ak fi réew mi toll ak fi mbir yi toll ngeen xam ne mani la amut benn candidat boo xam ne tey ji mën naa waat ni élection présidentielle ci réew mi day mën naa jaar ci wërngal bu njëkk ba mënta ne deux minutes pour lire l'essentiel naan man en tout cas parrainage bi mani la loo ci man ci dégg tey na xel laaj wa samp moom moo di kan mooy parrainé parrainage bi turbine yéen a kaay naan kon yéen leen rek ci ñaareelu wërngal bi ngeen di xam ne lépp dëgg la ndax daañu segg ci anam woo xam ne Amadou jaamaar lool daanaka xob sax moo leen di gën woyof yaatalal nañ ko terrain bi xàllal ko géew bi ne ko Amadou doxalal ndax Sénégal yaa leen war a jiite force yaa leen di jiite bugaan gay dana ci direct news naan leen dee day fekk kay yéen sénégalais yi ngeen nangu ko en tout cas rangoon naa sama mbubub géer fas yéene jaamaarloo ak système bi jaamaarloo ak nguur gi xañ nan ma candidature waaye nañ xam ne opposition bi duñ ko xañ présidentielle bi opposition bi ci boppam nañu booloo doon benn ñaabar ñaabari nag ñi nga naataange sénégalais daa xeebuñ ci dara turbine yéen a kaay naan man firnde gaa ngi ña doon liggéey fi mu ne ñi ngi ci xiifal goo xam ne amut àpp ndax nag fukki milliards ak benn yoo xam ne nguur gi diggoon na leen ko furaas daal di xiddeem l'observateur naan kon boulanger yi nekk ci guerre goo xam ne soo moytuwul moom mburu dees na ko yokk fayalaaxu l'évidence yéen kaay naan kon waxtu woowu soxna yaa ngi dund jaxan na ma ci kër yi fi mu ne gaz daal dinay manqué ba maar day taali ñu ne déeta waaye ceeb tàmbalee manqué riz indien bi deesu ko gis ci marché bi turbine yéen kaay naan kon kon waxtu woowu moom segg la nekkee ci réew mi gaa yaa ngay segg ka ñuy ànd ak kuñ dul àndal ci présidentielle bi lobs naan ko mbas tribune sport naan maan gaynde yaa nga jëm ci coupe d'Afrique des nations moom président Macky Sall naan leen ñaareelu étoile day bu ngeen ma ko andi leen danaa leen jébbal mbaxus boo xam ne masu leen ko xalaat yéen andi leen coupe bi rek la ca des maa koy def l'observateur naan ko ngeen moytu prêt ci internet bi lépp le xaalis goo xam ne mi ngi ci internet bi te fi ne mi ngi tas réew mi yaakaar yu bari ma ngi cay tas tasar ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm